Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maku internetu sëriñ Abdou Seck yëpp seen mbokk la Cheikh Abdou dini mu leen di nuyu di leen di waxtaan ak yéen tey ci di lënd bi fii ci cité indi ay mbir bari yu wuute fukki dafay dox ci jamono bi nit ñi ci sonn di ci utis jël seen alal di ci daw fu nekk te li koy faj mu ngi dend ak ñoom kon loolu dañ leen ci jàppale tey bu baax leeralal leen mbokk yi lan la première mooy nit ñaa ngi am jafe ci wàllu rab du ma jàngale du ma jàngale li koy li koy indi non non damay koy faj nga noppoo benn yoon benn jamono bii ñu ngi toll ci wàllu examen yi ku jàngut bëgg examen du complication wala nga jàng ba noppi ragal ñàkk loolu du am danaa ko jangale tay kep ku jang so defé li da ngay am ñaar danaa jàngale lii tax a bàyyi nit sàcc wala li nga xamne bu la rab jappé la ñu dindi sappi ko mu ci sa ci sa yaram bi comme dëkk bu jam ci nit nga dindi ko ben andi li mu ci mucciloo nit lu tax nit mu ci làmmeñ li ak bët dama koy jangale mu leer danaa jangale non lu am importance da ngay am ñaar ñi sey seen digënté neexul di xuloo di werante di jappante dana jangale lu ñu neexal digati ko ci kattanu yàlla dana jangale hoté ci mbolo ci kuy liggéey ci tailleur ci maçon ci entrepreneur bo meuna yor te nga xamné ne moko yo doxal buy buy jàll wala buy jaay dana ko jàngal bismillah kon mbokki yi première fois bi mooy su da nga bëgg art jëm jëmm ji ku la liggéey fatou nak la wax képp ku la liggéey ko deftali ku xey ci yow bu ngone ñorop ko utal juróom benn juróom ñaari mbiskit benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaari mbiskit mbiskit bi liñ ciy bind mooy baat yi ma lay jàngal déglul bu baax li ma lay wax mu leer da ngay bind fardu faara ci benn mbiskit nga teg jël beneen mbiskit bind si jabbaaru teg ñetteelu mbiskit bi nga bind si shakuuru teg ñeenteel bi nga bind si sawaabu teg juróomeel bi nga bind si shahiiru teg juram benen bi ngi bind ci khabiru tek juram ñaareel bi ngi bind ci shakiiru allahu akbar xolal nak bu baax ni may jangale ni ngay lekki biscuit yow sama mbokk da ngay jël benn biscuit bi nga jaaxaan ta taalalu say tank jaaxaan jakkar lay asamaan ngay jël benn biscuit lek ko ba tak nga nga te tëdd depp sa yaram bi yëpp lek benn biscuit muy ñaar nga jël benn te tëddee sa jor lekk benn yi ba mu jeex tag quatrième bi nga tëddee càmmo yi lekk ba mu jeex tag cinquième bi nga jóg toog nii ma toogee nii lekk benn sixième bi nga jóg taxaw dem lekk benn juróom ñaareel bi mooy septième bi ngay jël benn miski bi lekk ko di dox di wër biir néeg di di déplacé wal quraan al aziim maa ngi lay seedal ci rasulullahi ne képp ku la joxoñ baaram du ko natt benn boobu tëra ne ñu ñëw ñaareel su fekkee da ngaa jël say xale wala yow jëmm ji nga xam ne yaa soxla yi may jàngale école ubbi na da ngaa bëgg soo examen bokk ci fukki yu kenn moom la tere bokk ci juróom-ñaari juróom-ñaari ismu la alxuraan la nekk mu nga sorofu faatari ci isib bu ñëw xul xulaawloo jeextu xul bi ah mbokk yi da ngay jël juróom-ñaari biscuit nga xëy altina biscuit bu njëkk bi nga bind ci ilayhi ñaareel bi nga bind ci yashhadu ñetteel bi nga bind ci kallimu ñeenteel bi nga bind ci tayyibu juróomeel bi nga bind ci wala amalu juróom benneel bi nga bind ci saalihu juróom-ñaareel bi nga bind ci yarfahahu allahu akbar ñaari façon lekk ni la am ni ma jàngale woon ci mbiskit bi ni ko yéeye noonu ngay lekkee mbiskit yi noonu ngay lekkee tàndarma yi bu la neexee nga jël juróom-ñaari waxtu ci benn bis bi sept heures nga lekk benn huit heures nga lekk benn neuf heures nga lekk benn dix heures nga lekk benn onze heures nga lekk benn midi nga lekk benn une heure nga lekk benn moo dal di jeex kenn mënu la tere adme maa la ko wax Habib moo la wax loolu defal lii ma lay wax ni nga xool ñaar ñu ñëw ci li gën a yomb ko gën a garaawat ci miskit bi ba léegi duñ ko génn alquran allahu akbar ci yàlla xëy nooru alam nooru da leen da leen suivre da leen suivre émission bi te te ngeen di abonné xam-xam laa lay jàngal du ma la expliquer lay indil jafe-jafe lépp lu bëgg xam soo duggee foofu dana la yàq ci kàttanu yàlla mbokk bi ba léegi da ngay jël ñetti mbiskit ñett ñetti mbiskit ñett ñetti mbiskit képp ku am doom juy sat wala muy njaaro wala muy naan sàngara wala muy tox sigaret wala muy dox bañ a toog wala nag jàpp ko wala nga bëgg yow xaarte ba ko ba képp ko xëy ci yow di ci gont di yàq wala muy def balaa weer weer dee ci lenn lu ma di boppam lépp lépp lu muy def dañ koy def moom te ñetti baat time jàng na ko lan la da ngay bind ñetti bis nga bind ñetti bis nga bind bismillahi jafti bismillahi jafti ñaaral bi nga bind ci bisi rahmaani safti ñettal bi nga bind ci rahimi lafti allahu akbar nga tëdd lekk benn toog lekk benn taxaw lekk benn bu ci ko wallahi ma la wax loo xool bu lii mu lay jàngal ñi nga déglu bismillahi jafti rahmaani safti rahimi lafti tëdd benn lekk benn taw lekk benn taxaw lekk benn mu jeex xëy naa secret bi def ko yow sa dund bi su la neexee bu takk téere bu takk saafara bu sangoo saafara bu takk téere bu takk bu sangoo saafara ku laal laa wax ak koo mën doon ñu bugg ci ci kër gu mag ci kàttu na yàlla incha allahu taala ma ci beneen ci bii nag li may tëjee nag ci vidéo bi li may tëjee déglu ma déglu leen ma lu muy képp koo xam ne bëgg nga mucc ci làmmiñ lii ak lii bët ak làmmiñ allahu akbar benn saar la ci alxuraanul karim muy fatatul kitaab boo xëyee ba yeewu toog balaa ngay wax benn mbindeef da ngay gëm sa ñaari bët yi jàng bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amiin nga xool jàng alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amiin muy ñaar nga jël sa benn loxo ndeyjo ba takk si bët bi fatt benn bi xool benn bi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahu akbar pare nga kuy dox ci suuf yore nopp ak bët xamut benn mbindeef bu la mën a gëm ñu jàppaloo wala mu liggéey jàpp wala mu xool laa ba sa bët bu yàq mucc ngi ci yow wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa sallim di kontaan bu baax di ñaanal képp koo xam ne jëfandikoo nga xam-xam yi ma jox nii borom bi defal na ci tawfeex ak sutura su fekkee ne am ngeen lenn lu leen ci leerul rek gis ngeen numéro boobu ci suuf incha allahu taala kilif gi dina ko dugal ku ci amul woon laay rek jëlal foofu nga woote ji leeralal la liñ jàngale bu soobee yàlla incha allahu taala bu subaa ñu ñëwaat ci beneen vidéo wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa sallim wa salaamu aleykum